dal leen ak jàmm yéenekaay bii di l'observateur moo dalaloon kii di aji saar moom mi nga xamante ne toog nañu diir déggee satu ko moom nag lam xamal ñii di waa yéenekaay bii di l'observateur moo di ni je ne je n'en plus nee na mënatuma et je veux cette page moom daal la mbëgg moo di tourner page boobu noonu di lu jëm ci viol gi nga xamante ne ay jamono moom la doon jiiñ ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko jëmale ko ci jëmam jooju moom Adji saar nag gannaaw loolu mi ngi naan kat ndax état daa bëgg a négocier ak ki nga xam te moo di Ousmane Sonko ba ñu teg li nga xam te moo di ab dossier ci suuf wala lan moo ci xew naka noonu moom mii di Adji Sarr nee na kat. li nga xamante ne de moom lay jël ci décision dina ko def gannaaw li nga xamante ne moo di kii di euh, dossier kii di Mame Mbaye ak kii di Ousmane Sonko bu amul maanaam dossier diffamation bi buñ ko jugé wul moom dina jël décision boo xamante ne dina ko jël moom nag ma nga jeexale ci ni kat je suis jeune j'ai besoin de vivre comme tous les jeunes euh, de mon moom nag daa bëgg nee na xale la nee na daa bëgg di dund comme ni xale moromam yëpp di dunde waaye mënul fu mu toll ñu koy eh, tëj ci benn néeg ba mujjee lu coow ko sonaran mu mujjee luy appartement ba mujjee toog fa nee kat moom mënul di toog maanaam ñu koy tëj ak a tijji duñ ko bàyyi mu génn ba mujjee moom mu mel ni ab prisonnier prisonnière moom nee na loolu moom jamono ji moom mënatu ci dara la mu bëgg daal moo di di génn comme ni nga xam noonu la moromam yëpp di génne ki ko xamle moo di kii di Adji nekkoon ex masseuse boo nga xamante ni ay jamono moom lañ ji nañ kii di Ousmane Sonko ñëwee ci nii da koo te dossier ba ba léegi nii mu nekk ci bureau doyen des juges ban mujjee yóbbu ko ci li nga xamante ne moo di euh, flagrant ngir ñu euh, euh, juger kii di Ousmane Sonko moo ki nga xamante ni moo di Ndeye Khady Ndiaye.